sëriñ tubaa xaadalahu laahu maxtaar loo mas nay waxtaan ak sëriñ maxtaar bintaloo ba ñu tudd ak ngir ci naar yi ngir gu ñuy wax ñu ne ñooñu ay sërif lañu sëriñ bi ne ko xanaa xamoo ne ñooñu sunuy mbokk lañu kon sëriñ bi askanam ci naar yi la jóge ba tey itam ci sërif yi la bokk ñëpp sax ay bokk lañu waaye li tax muy wax loolu mooy ak jegente goo xam ne dafa am ci seen diggante ci sooxir sëñ Tuubaa xaadalahu lama taro nee na tafsir Mbàkke Ndumbe mi nga xame ne moo ko daan jàngal bi muy faatu mi ngi fekk moom sëriñ bi ci boppam mi ngi toll ci la tëj den na li ñuy dégg ci lool nag mooy sëriñ bi alxuraan moo ko ñar lool ba tax waxtu nekk li muy nettali ci la koy jëmale ndax waxul ne bi muy faatu maa ngi am nangam ci ay at te loolu moo gën a bari lu ñuy wax ñun tafsir mi nag radiallahu taala nijaayi sëriñ bi la sëñ Tuubaa xaadalafu lamataloo nee na daana jàng bayaan ak mantix ci naar bu ñuy wax Muhammadul Yadaaliyu mu nekkoon fële ca njaaj bayaan nag ak maani ak badian lu ñuy tuddee xam-xamu balaaxa naar boobu muy wax foofu ca njaaj sax fa ñu ko denc sëriñ Tuubaa xaala lahu lahmataloo nee na bi sëriñ Mor Anta Sali di toll ci wàccu ab liggéey nee na toog naa ci wetu boppam wàccee alquran bisub altane mu làq ca guddik talaata googu kon jàngal alquran ku toll foofu baax na lool sëriñ bi moom lu mu def rek aw yoon la naka noonu xasidaam itam sëriñ bi maanaam mënees na koy jàngal ci koy waaju waaj a faatu ki tollu diggante ba mënees na ko jàngal xasida waaye nag nii ñuy def léegi te mooy di topp ci ginnaaw néew bi di koy yëkkati gisaguma ci loo xam ne dafa jóge ci moom ci sëriñ bi sëriñ bi xaadalahu la mataloo bi ñuy denc sëriñ moor radiyallahu taala anhu àndoon na ca di dox ak tànkam di wax ñi nga xamee ne ñoo ko doon wax naan ko waral fii sëriñ bi di leen tontu naan leen dox ak samay tànk damaa gënal loolu nag day bëgg tuyaabam gën a bari ak di warmaal waajuram ak yeneen yu mu xam yoo xam ne ñun xamuñu ko mel na ne nag mboolem yi ñuy def muy julli ji wala seeti ku tawat wala lu mel nii te mooy ànd ak ku di dox ak sunuy tànk mooy li nga xamee ne moo gën te moo ëpp aw yiw Euh, bi nga xamee ne sàkku nañ ci sëñ Tuubaa xaadalahu mataloo ngir mu dugganteeg Lat Joor lii la waxoon ki nga xamee ne mooy sëriñ Tayba daf ko wax ne ko li nga wax de ci jaala gi ak dénkaane bi loolu moom lu rafet la yàlla na yàlla fay aw yiw waaye nag dem ci boor yi loolu de moom bokkul ci li may def ndax bëgguma dara ci seen alali àdduna man de ci yàlla képp lay sàkkoo teraanga Sëñ Tuubaa xaadalaf lamatalo mas naa wax ñi mu daan jàngal xam-xam ne leen képp koo xam ne jàng képp képp képp moo ko taxoon a ànd ak man na xool nu mu def te seeti fu mu àggalee am njàngam ku bëgg li ma bëgg nag toogal tey dox ni may doxe loolu bi mu koy wax daa bëgg ak dolli ci ñoom te ñoom xamuñu ko kuy defar nag tàmbali bi day nuroog ak yàq waye bu lepp agge ñu xamne da ngay defar bi mu waxe li nak ñu neew neew ño dess ci kër ga ah, ngir boba kat lim doon wote xamuñu ko ndax yonent bi alayhi salaam moo ko feeñu ne ko rabbi ashabaka bil himma wala turabbihum bi dar safaxat sëñ tubaa xaadal xulama taloo nee na sëriñ mor radiallahu taala euh ah, jangal na mom sëñ mor jàngal na jàngale na mawaahibul quddus maanaam téere sëñ boobu sëñ moor ansel ci boppam jàngale na téere sëñ Tuubaa yi nga xamee ne daf koo bind ci xam-xam sëñ moor jël na ko jàngale ko ay dongaam jàngal na ko itam ñaari doomam yi te mooy sëñ Cheikh Coro ak sëñ Afia loolu nag dañuy xamal ne sëñ moor radiyallaahu taala anhu wóolu woon na xam-xamu sëriñ bi xaadalahu la mataloo ba tey loolu dana danañu xamal ne topp cosaan waree su koo def waaye li ñu war a def mooy topp lu ndax sëñ morkat radiallahu taala anhu nekkul naan sanuusi yii bi nga xamee ne moom laa jàngoon laay jàngale waaye daa xool ne wayi sëriñ bi moo gën a yomb gën a barkeel mu bàyyi yii di ko jàngale li ko waral nag sëriñ bi booy jàng ay mbindam sa tuyaaba yàlla rek ay xam nu mu toll te lépp ay leer la yoo xam ne day dajale njariñ njariñit téere yépp yépp yépp xoolal bayit wi mu wax maddal la si xad nasala dafa tira lii nuuralaha fala akunu fatira kon njàngaleem sëriñ bi moom rawatina ay mbindam yëmut ak dara sëñ Tuubaa xaadal la fu la ma tolo neen yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama moo ne ko del yar sa àndandoo yi e xitte te bu leen yar ci njàngum kese mooy li ñu waxoon léegi rabbi ashabaka bil himma itte nag mooy pasteef buy tax li yàllay tere nga seexlu ko lool li muy digle itam nga bëgg ko lool itte jooju nag kuy jàng xasidaam yi da nga ko yëg lool bu wér a wér a wér euh, sëñ tubaa xaadalahu laa maxtaar la nee na mu jug tuubaa de till yay nekk ca mberd ya sama gët yaa ngi ci ne jàkk mu jóg tuubaa till yey tege ca mbedd ya yey nekk ca mbedd ya sama gët yaa ngi ci ne jàkk xëy na muy junj ñi nga xame ne dañuy yàq di leen nuróole ay till ndax lu mel noonu gisoon nañ ko ci ay mbindam gis naa mu naan li ëpp ci nit ñi dañoo mel ne till yu sol ay yére siyaabun fi siyaab ila axiri lii nag koo gis war ngaa xam ne sëriñ bi day xam lii ñëw lépp sëñ Tuubaa xaddalafu la mataloo daana bind lu daana bind aw këyit di ko teg foo xam ne waajuram dana ko gis sëñ bi di ko wax naan bàyyil buur yii seen tedd ngay àdduna ji lépp lépp toroxaa toroxtaa ngay ëllëg lay doon loolu sëñ Tuubaa daana ko def ci waajuram sëñ Maam Mor Anta Sali sëñ Mor Anta Sali nag radiyallaahu boo gisee mu daan ànd ak Lat Joor bëggoon a rawale boppam ak njabootam moo ko waral ndax booba buur yi dañ daan tooñ lu bari sëriñ bi itam boo gisee muy wax lii moom sëriñ bi daa régalul kenn ku yàlla subhanahu wa taala euh, suñ mbakki bu sa radiallahu taala anhu moom sëñ mbàkke bu sa mas bind kaamil boo xam ne da caa lool nga xam ne toggoowul ak am njàpp benn yoon ci weeru koor ba mu ko joxee sëñ tubaa xaadalafullah maxtarloo mu ne ko taxawal ma laajal la ko sa borom loolu la taxawal ma laajal la sa borom kaamil bi lan mooy tollu ak njëg ci moom daal di koy teg ci ab dënnam ba mu yàgg mu ne ko saa borom nee na sa kaamil bii ak njëgam mi ngi tolloog liggéeyal ma senn saa ben wax bo liggéeyal seigne touba neena mo tolo kamil ci netul bi nak ak yenen ci ngay xamee kon liggéeyal seigne touba khadalahu la mataloo da bok ci jagle yàlla yi subhanahu wa taala dunul lu malaike di meuna bind lu soob yàlla rek motax li gën ci am mourid lu muy def na ci fas liggéeyal seigne touba khadalahu allah muhtar lahu seigne touba khadalahu allah muhtar lahu neena ci mam Cerno radiallahu taala anhu li ñu gis ci moom li muy reey reey reey rëy wogg woggu dugub nday woggu dugub ndeyam waa maanaam woggu woo xam ne soxna Fatou Issa Diop mi nga xam ne mooy waajur maam Cerno moo ko defaloon euh, ki nga xamee ne mooy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasulillahi kon day xam la ne daa am lu ko waajuram maanaam lu waajur maam Cerno radiyallahu taala defaloon Serigne bi ba tax suñ borom subhanahu wa taala fay maam Cerno li ñuy gis ci moom lépp loolu la ci loolu nag nga gën a xam ne kon lu baax jërul di xeeb lu mu tuuti tuuti jërul xeeb ndax gis nga ne li bëriwul ak li nga xamee ne moom la ci am lépp euh, sëñ Mor Binta am na bis sëñ Tuubaa xaadal la mataloo di leen wutloo ay xer ca gànnaar mu indi aw sayam wu rëy wu ñu wax ko sëriñ bi sëriñ bi doxal boppam ba agsi ci say wi daal di koy woolu daal di koy laaj loo bëgg ci sa liggéey bi mu ne ko li ma ci bëgg daal mooy nga defal ma sama lamiñ bu mu tàggoog laa ilaha illallah sëriñ bi nag ko defal nañu la ko sa yéene ju ñaaw jëpp itam soppi nañ la ko aw yiw dafa fekk ne sëriñ bi nag boo ko defalee dara li mu lay laaj mooy loo bëgg li ko waral mooy nit li mu bëgg rek rek moo mën a dalal am xelam moo mën a seral itam ab li tax mu ñaan li xëy lu ko sëriñ bi dimbalé la ndax la ilaha illallah mom moy baat bi nga xamné mo gëna mag ci baat yi ku koy ko itam seytaane da lay sori lool kon mom amna tawfiq ju reey rëy euh, suñ binta mas nay dem gànnaar and ak ku ñuy wax sëriñ abdou ndoy radiyallahu taala ma di séti sëñ touba xaadalëf ma ñu rombu ay nar yi lak ak ndawal ñu dog ca ndawal ga may ko mu fas ko ci kaalaam takk ko ji ci ndiggam ba ñu agsee muy waxtu timis ñu ànd ak sëriñ bi julli ba ñu jullee ba noppi ba ñu dalal leen mu dem bëgg a lakk ndawal ga ci ab kaal waaye mënta fexe fexe ba ba mu ñor ba ndawal ga ñor mu wacc ko ca taal ba mu fanaan fa waaye ba bët setee mu mel ne lu musta jaar ci ab kaal sax ba mu ko waxee sëñ Abdu Ndooy mi nga xame ne moom la àndaloon mu ne ko bu ci sëriñ bi bu ñu sëriñ bi wooyee ñu laaj ko ko nes kiis rek sëñ Tuubaa xaadala fu mataloo woo leen ñu ñëw daal di nuyoo joxe li nga xamee ne mooy seen addiye jooju bi ñu nuyoo joxe seen addiya sëñ Abdu Ndooy daal di koy laaj sëriñ bi sëriñ bi daal di laajaat nu mu demee ñu nettali ko sëñ Tuubaa ne leen ànd gi ngeen ànd ak moom ànd ci julli gi moo tax mu ne su koo lakk ndawal gi mu fas ci diggalam ànd ak sëñ Tuubaa ànd ak moom julli moo tax ndawal googu kenn mënu koo lakk ba mu lakk cay sëñ Tuubaa kon lii dañuy xamal ne sëriñ bi ku ànd ak moom julli du lakk am na yoo xam ne nag sëriñ bi daana ko du mën a jekki-jekki rek di ko leeral moom du ko mën a leeral ci boppam su ko defee nag yu mel nii moo koy leeral bu li amee nag ci saahir war na ñoo xam ne yi ko yàlla may kenn xamul nu mu toll yàlla nañu yàlla doolee dimbale ci topp ci ginnaawam di ko liggéeyal ca nam ko bëggee ci ñun wallahu ahlam kon mi nga foofu la ñuy taxee ba subaak jàmm jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu